di ak ñun ñu leen di gërëmaat bu baax ginnaaw ba ñu seetaanee li nga xam ne moom mooy projection film bi nga xam ne amal nañ ko léegi euh, fi nga xam ne moom mooy ci euh, grand théâtre gis nañu nag les patriotes ñu ngi génnee fu nekk ci euh, ci biir fi nga xam ne moom mooy grand théâtre da leen di dénk micro bu ko defee ñu am seen réaction ci projection film bi nga xam ne seetaan nañu ko léegi ak ñun en direct ci sans limite euh, TV ñoom nag ñu nii dañ leen di jël kenn par kenn bu ko defee ñu wax ñu exactement projection de film bi nak ngeen ko gisee kilifa gi ñu ngi lay nuyu baax di la ziar. ñu lay fay di la ziare di leen jox seen wàccuwaay di rafetlu seen liggéey yéen waa sans limite. kontaan ci yéen bu baax a baax. di leen yóbbante nuyoo si sans Ngone Saliou. jërëjëf alors naka ngeen gisee projection film bi. wax dëgg yàlla projet bi wax dëgg yàlla neex nañu trop. Mhm. ndax lépp loo xamante ne ñu ngi ko ci doon séntu gis neen lu ci kawe suñ ndax wax dëgg yàlla macha allah daal liggéey bi wax dëgg yàlla macha allah mhm. te film bi xam naa ne ku seetaan si wit bi mhm. wax dëgg yàlla film bu neex la doon film bu intéressant la. li nga seetaan lan moo la ci gën a frappé. lépp frappé na ma ci lépp lépp frappé na ma ci ndax film bi daal lépp moo ci am importance mhm. surtout bi nga xamante ni dem nañ ba commencé parti bi dugg ci jafe-jafe yi nga xamante ni maanaam moom la ñu am nguur gi fi nekkoon doon ñu teg mi Macky Sall ak njabootam. waaw ngir jaay doole kese nag tegul ko ci lenn lu dul jaay doole ci la ko tegoon mm-hmm. waaw wax dëgg yàlla en tout cas daal moom wax dëgg yàlla nañ leen muñal gars yi ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ni mm-hmm. ñi fas yéene ndax muñ ndax ñi fi nekkoon yàq nañ réew mi yàq goo xamante ni mm-hmm. maanaam kenn ku si nekk dégg na ko démb ci li nga xamante ni moom la premier ministre wax ak membre de gouvernement bi nga il fa que na ñuntam ñi mën am temps ñun ñi nga xamante ni ñoo wooteel gars yi may leen temps maanaam muñal leen jox leen majorité Assemblée nationale le 17 incha allahu rabbi pour ñu mën a gouverner kem ni nga xamante ni noonu lañ ko bëggee. d'accord waaw ñu ngi rafetlu nag yéen waa sans limite. seen liggéey bu baax a baax a baax. di yóbbante yi nuyoo Ngone waaw maanaam yen ñëpp daal ñu ngi leen di. ziyaare bu baax a baax di ñaan yàlla. yal na yàlla yokku leen ba yëf yi nekk ay seeni seen si barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rafetlu nañ seen liggéey baax na jëf kilifa gi ñu jël keneen bu ko defee mu jox ñu réaction par rapport ak euh, wala sax bu ñu seetaanee li nga xam ne moom mooy euh, euh, projection de film bi wax ñu exactement lan moo ko ci gën a frappé kilifa gi waaw man de liñ doon si daal li ma ci gën a frappé mooy li nga xamante ne moom la mm, kii El Malick Ndiaye doon wax dafa dafa ma frappé trop surtout moment bu ñuy bu ñuy euh, soog a fondé ki nga xam ne mooy moo di parti parti Pastef. Mhm. dafa nekk maa parce que comme ni nga ko waxee dañoo nekkoon si moment boo xam moment bu difficile la woon. mais mhm. yàlla dimbali leen ñu amoon courage xam nga ñu amoon courage nekk ay njàmbaar. Mhm. topp gars yi liñ leen liñ leen teg yëpp ñu bañ koo faale nekk sa ba yàlla def li nga xamante ne moom la leen moom la leen defal te mu di fay bi nga xam ne moom la leen fay coono bi nga xam ne dajoon nañ ko si ay at a kon euh, Ousmane Sonko lii rek mooy mérite am lii rek mooy mérite am waaw loolu la am na hmm, ok merci beaucoup merci jërëjëf koy gërëm bu baax ñu jël keneen bu ko defee itam ah kilifa gi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar nga wax ñu ne exactement lii nga jot seetaan lan moo la ci gën a frappé. ok maa ngi leen di nuyu yéen waa 6 minutes maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di rafetlu seen liggéey bu baax man daanaka chaque jour dama leen di seetaan damay seetaan Cheikh Ousmane Touré ak Ngone Saliou. maa ngi koy remercier bu baax di kontaan ci moom lool lool. ndax jigéen la joo xamante ni wax dëgg yàlla bu jigéen yëpp meloon na moom kenn du xeeb jigéen. rafet ñoo ngi rafetlu sa liggéey ak sa seen waa équipe bi yëpp seen équipe teel bi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. man nag euh, militant Pastef laa depuis lu yàgg daanaka. kii bi li fi li am ci kii bi yëpp gis naa ko mais daanaka Pastef moom lépp am important amul benn épisode boo xamante ni day ñëw nga ne bii moom a gën a bala bee moom gën parce que président Ousmane Sonko dafa ñëw yéeñu ñun ñii man tey ji fi may gis ni ndongo daara laa li ci bëri xaw ma koon c'est grâce à Ousmane Sonko ma dem gëstu ji nasaraan xam ndax des fois dafa am loo xam dañ koy bind am loo xamante ne dañ koy làkk ci nasaraan duma ko mën a comprendre Ousmane Sonko moo tax ma mën a dem gëstu ji nasaraan ngir mun a yëkkati baat ngir mun a wax expliquer ñi nga xamante ni comprendre projet bi lan la président Ousmane Sonko indi nit ñi. man président Ousmane Sonko ñu bëri dañu koy gis comme politicien mais man du ma ko gis comme politicien Ousmane loo gis ci moom. dama koy gis comme yenente bi nga xamante ni comme yenente la boo xamante ni yàlla suñu borom da wàcc ci Sénégal ngir mu xettali ñu. Mm. ndax Ousmane Sonko boo xoolee ay jaar jaaram dafa xaw a nduroog ay jaar jaar yenente ak ay góor yàlla yi fi jaar. moo tax Ousmane Sonko man botu xutbu laa koy xool botu yente laa koy xool di ñaanal moom président Ousmane ko ak euh, ba sir Diomaye Faye yàlla na leen yàlla suñu borom defal jàmm yàlla defal leen tawféex yàlla suñu borom moo xam lan la ñu yéen a sénégalais ci jàmm yàlla na leen ci yàlla àggale ak jàmm ak salaam di ñaan jeunesse bi yëpp ñun nañu bañ a déglu ñi nga xam te ne dañuy divertir tout le temps parce que ñun Ousmane Sonko bu fekkoon alal rek moo ko tax a jóg mu demoon ànd ak ndafa moo gënoon yomb mais dafa choisir libérer boppam libérer peuple bi kon naka peuple bi dimbale ndax lii mu indi du intérêt personnel intérêt général la maa ngi leen di sant di leen gërëm jaa ngeen jël keneen bu ko defee itam mu jox ñu son avis euh, par rapport ak li nga xam ne moom la ñu seetaan ci biir nga wax ñu itam fan nga jógee li nga seetaan lan moo la ci gën a frappé dëgg la asalaamaaleykum man maa ngi jógee Kër maa ngi tudd Matar Matar Gueye yéeme na lool et puis tamit jël naa si loo xam tey ci rawatina ndaw yi nga xam ne dañuy jël gaal lii boo ko seetaan sax tax na bu fekkee da nga doon jël gaal sax da nga toog xam nga jàpp sa réew bëgg sa toog nga ñaanal yàlla ñi nga xamante mooy fi ne ñoom lañ ci ñaan yàlla ñu réussir te réussir pour ñu pour ñu ko dañ leen di ñaanal yàlla majorité le 17 ñëpp bépp ndaw nga votel ki nga xam ne mooy euh, Pastef moo majorité boo defee képp koo xam dafa noonu jël gaal sax bu tawee fii yaakaar dina mën a dellu si ñu toog ñu liggéey Sénégal tax ñun ñun ñëpp loolu la ñuy yaakaar am naa si moom ndax man ku dul Ousmane Sonko wala parti Pastef du ma la bëggee tey bu ma demee tey ba politique ginnaaw yàlla subhanahu wa taala ñoom ñoo tax te jàngal nañu lu bari lu bari loo xam ne képp kuy ndaw rek war nga si jëlee lu bari waaw dèjà boo gisee yenn jeunes yi di jël gaal yàqamte la rek ndax sa kër sax yow boo koy tabax tey mënul xëy xëy xëy lépp sotti kooku ñu ñoo ñu muñ ndax gëm naa ni li ñu raw li gën a métti li ñu li ñu romb li gën a neex mi si kanam te si kattanu yàlla dinañ koy jot dañ toog ñu ñaan yàlla yàlla dafa ñu gudd fan dafa Bassirou Diomaye Faye réussir Ousmane Sonko réussir képp kuy ndaw yàlla na yàlla defal jàmm si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam jërë ngeen jëf Saly bi jërë ñaan yàlla yàlla yokk dafa leen gudd fan ba seen liggéey bi yàlla ngeen réussir jërë jërëjëf alors kon nag mi ngi mi ngi noonu quelques réactions la doon jël ci par rapport ak ñi nga xam ne ñoo fi euh, daal di euh, teew doon fekkee si euh, Fary j'ai besoin de ton avis nga wax ma exactement li nga seetaan tey ban gis-gis nga ci am ñu ko defee ñu daal di ko waxtaanee tëj li nga xam ne moom mooy jotaay bi lee ndax nag depuis 16 heures ñi ngi fi seetaan nga li nga xam ne moom mooy projection de film bi nga xam ne moom mooy avant goût ndax la producteur mën nañ ko tuddee noonu wax na la ca kanam moom mooy dax mois de novembre lañ ko war a génne euh, euh, ton avis par rapport ak li nga seetaan ak lan moo la ci gën a frappé absolument donc euh, di nuyuwaat rek euh, internetu sans limite TV bu baax a baax comme nag euh, ni ngeen ko gisee daal di nañ assister à la première bi nga xamante ni la doon def ci film bi ñu intitulé le projet. le projet nag yaakaar naa sénégalais yàgg nañu ko dégg sénégalais yàgg nañu riir ci li nga xamante ni mooy yow yi ànd ak le projet tey nag ñoom parti Pastef les patriotes daal di ànd jël li nga xamante ni mooy seen histoire daal di koy taataan bind ko ci li nga xamante ni mooy scénario teg ko ci film bi le ñun ñëpp gis nañu ko muy la genèse maanaam parti bi naka la juddoo Pastef nag yàlla def na benn affaire si euh, parti bile muy parti boo xamante ni dafa am histoire am vécu malgré le peu de temps bi nga xamante ni daal di koy survivre parce que gis nañ léegi léegi ni nga xamante ni ko créé na dooree fële ca UCAD na ko dooree seen waxtaan yi nga xamante ni amaana ña fa doon nekk sax du ñu bëgg amaana fës mais teewul dañu doon ànd di waxtaan ci li nga xamante ni moo ñeel réew mi euh, li gën a tax tamit tey jii ni parti bi taxaw mooy ñoom ñu nekk ay fonctionnaire bokk état di doxal état xam ni état di doxee malheureusement gis si ay manquement ndax nag gis nga sax déjà li nga xam ne mooy origine création bi les partis c'est parce que tout simplement en 2012 alternance politique dafa am kii di Macky Sall ñëw au pouvoir ba mu ñëwee nag indi li nga xamante ni mooy ay gis-gis indi li nga xamante ni mooy ay digle ñoom ñu jàpp ne teguwul ci yoon bi nga xamante ni en tout cas yoon boobu la waxoon moo waral rek ñoom itamit seen biir en tant que fonctionnaire ñu daal boo xamante ni don metti je pense que kii di El Malick Ndiaye il a bien expliqué lan noo waral sobriquet boobu noonu lan noo waral i tamit euh, choix wu panthère bi lan noo waral choix wu couleur yi loolu yëpp mu nekk ay ay ay ay misaal yoo xamante ni en tout cas dafay wone gis-gis bi nga xamante ni parti Pastef les patriotes daal na ko am par rapport ak Sénégal loolu nag am na lu bëri loo xamante ni ay jafe-jafe yu mu jur la si seen si seen doxalin parce que kii di Ousmane Sonko nekkoon inspecteur des impôts et des domaines nekkoon di liggéey dañu ko daal di radier en 2016 moom Ousmane Sonko bañu ko nag parti bi ah, néewoon na mu am doole ndax amuñu woon amaana koppar bi nga xamante dinañ mën a jàmmarloo ak parti politique classique yi fi nekkoon ndax wax nañ ko sànq ils avaient ils avaient devant eux li nga xamante ni mooy la force de l'État dirigée par régime bi nga xam ne moo fi nekkoon ñoom de simples fonctionnaires kii ñu raje ko ñii itamit fi ñu nekk di liggéey ñu mettre leen au frigo donc c'était très difficile mais quand même avec la diaspora parce que fii li nga ciy ah, bi ci li nga xamante ni mooy massification parti Pastef les patriotes xamante ni tey nit ñi xam nañ ko ci Kopar Express ñoom fa mu tàmbalee muy fële ca diaspora bi muy France ñi nga xamante ni amaana bokk naa lañ ko tuddee doon euh, teg seen cinq euros dix euros di ko dajale di ko dajale ba mu nekk benn somme boo xamante ni moom Ousmane Sonko bi ñu ko contacté pour daal di koy jox loolu le ministre actuel des télécommunications Aliou Sall moo ko daal di liggéey ba mu ko ko joxee daf ko ne déet man lii du ma ko laal parce que seen koppar la nañu ànd ci li ñu gëm malheureusement nag xaw a uula comme ni ko le ministre waxee mais teewul Sonko daal dina nangu xaalis boobu et foofu la lépp déparé coow li commencé wax li commencé ñu ciy dem di ci dem ak seen idéologie bi nga xamante ni am nañu ko yàlla def nag en 2017 ñu participé si li nga xam ne mooy élection législative malgré les maigres moyens malgré li nga xamante ni tey jii nii mooy coono bi nekkoon seen bi parce que ñu ngi leen doon teg problème yoo xamante ni amaana ñoom mënuñu ko attan ñu ngi leen doon teg ay mbir yoo xamante ni ñoom tey jii nii bu fekkoon ni sax dañoo xaw a nooy bopp amaana dinañ bàyyi dinañ xaddi ba ci kii di Ousmane Sonko jàkkaarloog ay nitam ne leen xam leen ni combat bi mën ngeen ci perdre seen liggéey xam leen ci combat bi mën ngeen ci perdre lépp lu ngeen am xam leen ni combat bi mën si ñàkk sax seen bakkan mais teewul jàpp ni lépp lu ñu def tey lu mu metti metti lu mu tar tar dans cinq ans maximum dinañu am loo xamante ni tey jii nii ñun dina wees suñu deew te dëkk bii di Sénégal képp ku fii décidé ti dig ñu laaj wala boog ñu ñu décider à votre place et effectivement c'est comme ça que tënk rek loolu mooy li nga xamante ni première partie wu film bi parce que wax nañ ko trilogie la maanaam ñetti partie la yoo xamante ni des distances périodiques dinañ ko daal di euh, publier tey nag ñu doon waxtaan ci li nga xamante ni mooy bi maanaam fa partie bi sokkee ko na mu yan jàmbaara nekkoon ci ginnaaw ak ban liggéey la ñu daal di liggéey donc loolu mooy en résumé li nga xamante ni en tout cas wax nañ ko ci euh, film bi mu nekk nag film boo xam ne riche émotion parce que gis Jamil Saare ñu bëri dañoo jàppoon ne sax amaana ñoom 2019 2020 la ñu bokk ci parti bi mais ku ci mel ne Khady Diène tey kooku boo ko xoolee gis ne yàgg ci projet bi Papa Alé Niang stratégie yi nga xamante ni tegoon na ko pour jàppale ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko mu daal di mën a communiquer parce que dafa jàkkaarloo woon ak régime boo xam ne am na toute la presse à sa disposition mais yow opposition mënoo see accéder parce que tout mooy El am ci xel bu rafet lool itam am ay stratégie yoo xamante ni daf ko daal di teg ba loolu noonu nga xamante ni en tout cas mooy liggéey bi ñu bi ñu bëggoon am ñu am ko communication bi ñu bëggoon am itamit ñu am ko donc mën nañ jàpp ne daal Pastef ay coono yi coono moo ko daal di jur waaye bi ñu demee ba toll fi ñu toll tey yaakaar naa ne bu ñu toogee di fàttali ko démb loolu lu neex la Albourakh. d'accord merci beaucoup Fary je pense que tënk nga kàddu gi laata ñuy euh, tëj jotaay bi lee dañuy euh, jox may. Euh,